أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam di ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu nu yàlla boole ci péncam mi yal na nu yàlla boole noonu ci aljanna firdaws di leen sant bu baax a baax a baax ci ñaan yi semaine bi passé yëpp yàlla dafa defoon yaram bi sutante waaye alhamdulilah seeni ñaan ak seeni jokkoo ak seeni ziyaara di leen ñaanal yàlla bu baax a baax yal na yàlla def ko fii misaani xasanaatikum yawma la yanfaw maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim ñu dellu siwaat ci suñu dars tafsirul quranul karim di ànd ak yéen ba tey ci suratu tawba ci kàttanu borom bi ñuy jël tey ñeenti aaya muy aaya 86 87 88 89 wala ñu jël juróom ba 90 mu nekk juróomi aaya yu nu sunu borom subhanahu wa taala di jàngal juróom benn mbir yooyu ba ci jiitu mooy alquran huwa masdar at tashri al ilahi alquranul karim moom mooy source mooy fondement mooy balluwaay bi ab jullit war a jëlee aw dundinam ndax loolu ci yàlla tabaraka wa taala la ko jëlee moo tax mu nekk at tashri al ilahi doxalinu yàlla yàlla li mu namm nu dundee ko ci kaw suuf ci alxuraan la ko def looloo tax waa kaw suuf danañ sonn trop pour jéem a dund beneen dundin bu wuuteeg bëgg-bëggu yàlla mbokk yi ñun ñëpp xam nañ ne tali pour lan la dama bëgg ñu doon tali pour lan la pour oto dex wala géej pour lan la ah ok jaww ji pour lan la léegi nag bu borom oto yi ne non ñun foog ñu dem ci kaw asamaan parce que fii dafa xat embouteillage bi daa bëri foog suñu oto yi naaw ñu dem kaw jaww ji ah autorail bi ne non non foog ma dem ci tali bi ñu yor bato yi ne non foog ñu dem ci tali yi ñu tëbi parce que géej gi dafa soof yàgg nañ fi ndoxum kese ku nekk ne sunanu la doxalin bi nga xam ne moom nga war a dunde nag doo ko def lan mooy xew ah loolu mooy sunu dund tey dafa jaxasoo parce que doxalinu yàlla ni yàlla bëgge nu dunde nun loolu lan lànk maa ngi seen Daawda Jóob sànq muy julli si timis ma ne daawda audio yi may yónnee daf may sonal ndax audio yu dangereux rek la ma daawda di yónnee ay gars yoo xam ne kenn naan man caabi àjjana ca Kaolack lañ ma ko joxee ah imaginer kilifa diine bu toog naan man caabi àjjana Kaolack lañ ma ko joxee ba ci première fois biñ ma ko njëkkee woon ca Kaolack laa nekkoon caabi àjjana kan lañ ko indil fii Sénégal ah dañu yaakaar ne àjjana ay caabi la yoo xam da ngay ñëw di dugal nii di kuruj kuruj kuruj kuruj hôtel yi sax léegi amatul caabi bu ñu lay jox boobu malaak nag ay aljanna miftaaxul janna lan la laa ilaha illa allah muhammad rasulullah allahu akbar yéen waa sénégal yore ay caabi yi ñu joxee la quoi ngay dem ci kànkaa yére bi jënd ñëwaat dugal dugal sa poos soo ñëwee ndeysaan allahu akbar réer a bon mbokk jullit yi alquran mooy programme yàlla ak sunna yonent bi alayhi salaam at tashriul al ilahi al ula première sunu atte attewukaay bi nu yàlla sant nuy attewoo mooy alquranu karim ñaareel ba mooy sunna yonent bi alayhi salatu wasalaam moo tax alquran ne wa in tanazatum fi cheyin farudduhu wa maxtalafu wa maxtalaftum fi chey fa hukmuhu ila allah wa rasuli du jeex aaye yi su ngeen wuuteetee ci dara dellu leen ci yàllaa kub yonent jeex na yàllaa kub yonent ñooy dellookaay bi waaye fii tey li tax dund gi metti li tax dund gi këraj li tax sunu diine munta baax mooy julli ñi dañoo fàtte yàlla dañoo fàtte sayyiduna muhammad alayhi salatu wasalaam ñaareel bu ñuy jàng ci sunu aayo yi tey mooy mashruiyatul istizan lil haaja al muliha gis nga diine yar la diine lépp yar la diine lépp yar la diine yaree di ko amu ci diine discipline la sunu borom subhanahu wa taala dafa yaroon yonent bi yonent bi yar sahaaba yi ba sahaaba yi bu ñu toogee ak yonent bi alayhi salaam jàng ngeen ci siira dañuy mel ne ay garab xam ngeen garab est-ce que garab bu ci picc tagee dina ko yëg garab bu ci pittax tagee dina ko yëg sahaaba yi noonu lañ meloon dañoo yaru woon ci kanam yonent bi alayhi salaam ba yenn saa yi yonent bi di wax ak ñoom ay pittax dañuy ñëw wàcc ci seen kaw bopp yi du ñu sentir ne pittax wàcc na ci seen kaw ndax ni ñu ni ñu concentré woo ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye yàlla yar leen ba ne leen même bu ngeen toogee ci benn yonent bi kenn ci yéen am soxla di génn bu mu génn lu dul na ñëw ba ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko kat dama am aaju kër ga wala woo nañ ma léegi wala wala daal di koy dee ci nopp yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye yonent bi jox ko ndigal mu doog a dem allahu akbar lu tax annabiyu awla bil muminina min anfusihim yonent bi moo leen gën a yey ci seen bopp kenn ci ñoom bu mu dugg ci jàkka ji wala sa kër bëgg a dem fenn lu dul mu tàggu la te su la neexee yow yonent bi nga ni ko demal mu dem bu la neexee nga ni ko toogal mu toog moo tax al istizaan yëglu dafa bokk suñu diine waaye kenn ci ñun amul droit sax di dugg ci kër lu dul nga yëglu amoo droit di wax ak kenn lu dul nga yëglu yëglu dafa am importance al istizaan yëglu rawatina nag bu dee aajo la da nga am aajo nga yëglu kër nit kenn waru fa dugg te yëglu woo néegu nit waroo fa dugg yëglu woo alalu jàmbur kenn waru ko jël te yëglu woo daraay doomu aadama waroo ko laal ab jullit te yëglu woo nii la diine yare woon démbi doomu doom démb doomu aadama yi nii la ñu diine yare woon mais tey ku nekk ci ñun lu la neex nga def ba ca tegu mooy xurmatul istizaan li taxalluf anil jihaad ñëw di laaj ndigal ndigal di yëglu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam naan ko man kat damaa bëgg a absenté jihaad te ñu taxaw jihaad baa ngi nii nga naan man du ma dem di indi ay ngant loolu dafa araam dafa araam ci jullit maanaam jullit ñi war a jàkkaarloo ak yéeféer yi yow ngay deltu ginnaaw di indi ay ngant te tey loolu moo nu dal jullit yëpp yi nekk ci àdduna bi tey bu ñu nekkoon benn bopp benn borom xam-xam daf ciy joxe benn misaal bu yéeme bu doy waar. dafa am ñi ñëw Berlin xam nga am na machine yi ñëw Berlin ah waaye am na ñoo xam ne Berlin bu ñu koy ñëw duñ ko ñëwee machine lu ñu koy ñëwee seen loxo waaye ñooñu professionnel lañ yoo xam ne. seen baaraam yi ñuy ñawee dafa am luñ koy solal baaraam bi dafa am luñ koy solal fii benn capson bu tudd nu mu tudd benn capson weñ la ah dee dee la tudd dañ ko koy solal nii pour lan pour bu ñuy jam puso bi puso bi du leen du bënn seen baaraam ci weñ bi la yem ndax ñooñu mais buñ la ñawalee ba pare da ngay xam ne ñi ay professionnel lañ doo mun a xam lii machine moo ko ñaw wala loxoo ko ñaw li ma bëgg a joxe foofu misaal rek mooy dee bi laa soxla soxlawuma ñaw bi soxlawuma wëñ gi soxlawuma mbubb bi dee boobu kapson bu ndaw boobu nga xam ne buñ ko solee fii lay yem benn borom xam-xam nee na jullit yi ñu nekk ci àdduna bi bu ñu ko yore woon ku nekk jël benn benn capson dee boobu ñu yël ko ñu def ci ndox gis nga ni mu tuute mu ne ñun ñëpp ñu ànd ba Israël ñu këpp ko leen ñu këpp leen ko mu ne dañuy lab dañuy dee lan la bëgg a wane foofu kooku lan la bëgg a jàngale ah borom xam-xam lan la bëgg a jàngale déedéet jàngalewul bennoo de dafa bëgg a woon ne ñun jullit ñi ni ñu toll ci àdduna bi ak yahud yi ni ñu tuutee ñun buñ jëlee xottu gerte buñ ci defee ndox buñ leen ko këppee ñu lab waaye xoola nit ñu mëne xoola nit ñi noggatoowe parce que lu tax parce que ñun dañoo yaafuus parce que dañoo fënëx parce que yonent bi moo ko waxoon yonent bi waxoon na ne maa ngi nii toog septième siècle may seen yahud ak nasaraan di jiiroo jullit yi ni ñuy jiiroo boolub ceeb ndeysaan keroog saxaaba yi dañoo tiit ba am ci ñoom ne ko a nahnu qillatun yawma izin ya rasulallah xanaa dañoo tuuti mu ne bal yawma antum yawma izin kasir walakinnakum xusaa ka xusaa u sayl wallahi déedéet da ngeen a bëri waaye da ngeen a mel ne puurit puurit puurit xam ngeen puurit puurit am na njëriñ purit suñ la ko defalee ci kaas sax ataaya ba mu fees looy naan purit bi ngay naan wala ataaya bi ataaya bi soo doon fóor sax paan bi fees del ak purit nooy def purit bi ñu ngay def da ngay wàññi purit bi ba ndox mi des nga doo ko dem parce que purit amul njëriñ yonent bi nee na noon ngeen mel da ngeen a bëri mais ay purit ngeen mooy tey wala jullit ni ñu bëree benn borom xam-xam bu tudd Cheikh Abdul Hamid Kisk biñ naan jullit ñi un milliard lañ mu ne loolu bu mu leen yéem un milliard ñaata chiffre la ah ah un milliard ñaata chiffre la dix chiffres lan moo ci am signification un bi kese jeex na yi ci des yëpp zéro amul njëriñ un bi rek moo am signification mooy mooy ñun tey ñun ñëpp un lañ un un li ci gis naa yëpp ay zéro la zéro bu njëriñ la am nañ la defal nañ la defal benn sec ñu def ci ay zéro zéro zéro zéro zéro zéro nga dem nga ne tiireel leen ma sec bi ñu xool ñu gis lépp zéro la ndax di nga tiire foog mu am benn lettre bu jiitu zéro yi benn chiffre bu jiitu zéro yi nga doog a retirer chèque boobu mais ay zéro kese loolu nag moonu dal mbokk yi ay zéro lañ tey ba ca tegu mooy xurmatu taxalluf anil jihad bi duuni izni bi duuni iznin min imam dafa aram ci jullit yi ñuy xare ji kenn ci ñoom absenté te ci imam joxu la ndigal ah dafa aram ci jullit yi ñuy xare ji kenn ci jullit yi mu absenté lu dul imam bi moo ko ne yow mun ngaa bañ a dem léegi ban imam moo ñuy jox ndigal nañ jihaate ji wala nañ def nii wala nañ def lee ban imam anamu damaa bëgg ñu wam na imam boobu waay fan la ñuy jokkoo ak moom ban loolu mooy numéro téléphone am ban dëkk la nekk imam bu julli di jokkool naan ko imam dañoo war a woor suba wala dañoo war a wari dañoo war a julli wala dañoo war a ban imam la ci àdduna bi fu mu nekk lii mooy suñu problème un milliard musulman amuñu ku leen jiite ci àdduna bi ñuy tëñëx tëñëxi ngelaw lu ñëw jël leen ñu leen di rey guddi ak bëccëg fan yee dañ ma dama seetaan Facebook fële Birmanie Birmanie Myanmar ñoo ngi gas benn kamb boo xam ne kamb bi toll na fi ak stade ñu dugal ci jullit yi góor ak jigéen xale yeeg mag ñi ñu yuuxu allahu akbar allahu ñu leen di suul ñu yuuxu ay nit ñu leen di suul ba njeex tàkk ñooñu kay moo leen di wàllu tey anañu ana ana kan moo leen di jooyal anam loolu tey bu ñu ko defoon benn chrétien wala ñu def ko benn yahud ci àdduna bi wala ñu def ko benn américain wala benn français la ilaha illallah àdduna bi kenn du nelaw ñëpp dinañ ko yëg yéen a ngi nii am na ñoo xam ne yëguñu ko Centrafrique gu jege gii dañuy jàpp jullit ñi di leen lakk nii fii fii gu jege nga xam ne mu ngi suñu wet jàpp jullit ñii solo leen pono di leen taal di taal jàkka yi taal kaamil yi ah soldaaru soldaaru tchadien yi fa nekkoon doon défendre jullit yi dañ leen a dàq France da leen a génne ne leen ci xaj ndax yéen da ngeen di fa da ngeen di faral jullit yi wala da leen a génne adduna bi di seetaan loolu ñeneen ñi des fa ñuy rey jullit yi comme ça ñu toog seen loxo di seetaan ni lañ lay wane armée France taxaw ñuy rey jullit yi ñu taxaw di seetaan bu ñu xamee ne jullit yi jeex nañ nag ñu doog a intervenir ba kañ lu ko waral mooy amuñu tey ku ñu jiite ci adduna bi kenn kuy wax adduna bi sax dafa sori Sénégal gi donc buñ fooxoon kuy jiite jullit ñi kan la ñuy wax kan la ana imaamu jullit yi ci Sénégal ah kenn di yëkkati loxo imaamu jullit yi ci Sénégal am nañu ay imaamu tarixa nag imaamu tarixa tarixa diw kuy seen imaam ñu ne diw tarixa sàngam ñu ne diw ta diine bi islam globalement ko jiite ñun ñëpp ku nekk yaa jiite sa bopp man ji maa jiite sama bopp yéen ñi toog ku nekk yéen a jiite seen bopp su ngeen génnee mbedd mi ku nekk yaa jiite sa bopp loolu mooy sunu bilan moo tax duñ dem dañuy sono suñu bopp fekk delluwuñ ci benn ginnaawu imam benn ginnaawu kilifa parce que l'islam loolu la l'islam dafa jàngal nit ñi ñetti nit sax bu ñu tukki lu dul ñu am ku leen tey jii ci jàkka ji bu julli jotoon est-ce que ñun ñëpp dañuy nekk ay imam ñun ñëpp lu ñuy bari bari bari bari foog ñu am benn imam suñu duggee ci oto li ñuy mën a dawal ñun ñëpp il faut mu am benn ah waaw léegi nag ci suñu wàllu diine ñun bañ ko ñu ne ñu ko non non non amul problème quoi ku nekk rek mën ngaa def loo neex loolu mënu nekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàllaa ko yónni woon mu jiite diine ci yonent bi jógee fi kan moo ko jiite woon ah Aboubacar Aboubacar bi mu fi jógee Omar bi mu fi jógee Ousmane bi mu fi jógee kon diine l'islam depuis yonent alayhi salaatu wasalaam dafa am ñu ko war a jiite dafa am ko ko war a jiite naka la nuyu nangoo ñu nekk Sénégal 95 pour cent musulman amuñu kuñ jiite ba ca tegu mooy fadlul jihad bil mali wa nafs fi sabilillah importance xeex ci yoonu yàlla kawel kaddu yàlla ci sa alal ci sa jëmm sa bakkan dafa am importance kawel kaddu yàlla kaddu yàlla kawel ko du jël jaasi rek wala jël fetal wala jël déedéet tey ci sunu àdduna bokk na ci li ñu tardeel mooy ñàkk am kattan ba mën a liggéeyal sunu diine walla doon wax démb rek benn benn waay démb la ilaha illallah dama laaj mu ne waaye seen école inscription ñaata la ñu ne ko temps mu ne ak alxuraan rek loolu rek ak cher alxuraan kese ndeysaan ma téye téléphone bu lu yàgg allah mu ne ma waaw allo ma ne ko man kay vraiment fi mu ne damaa découragé mu ne lan la ma ne ko alxuraan bi nga kese kàddu yàlla nga keseel ko ne kese su ma la woon léegi léegi boo yóbboon sa doom léegi école ñu ngi nii tey école privée catholique yi ñu naan acca ñu naan ñu ñoo bañ demuñu ñu naan ñu acca du ngeen fi dugg ñuy lànk ne dañuy dugg gis nga kenn du fi muuru kenn du fi def nangam ñu lànk ne fii la ñuy jàngee te ñooñu ay lan lañ ay ay catholique dañuy dàq seen yëf ñun ñu naan ñoo bañ duñ ko bàyyi ñun jullit yi ñu naan alxuraan ñu naan kese kese. ndeysaan daara ju nekk suñu kër benn femme dafay indi doomam ab yaakaar naa borom daara jàng fi toog ci biir ne abu looy jàng mu ne mille mu ne alxuraan mille franc ah yow tamit nag alxuraan mille franc. alquran moom jarul 1000 francs allahu akbar law anzalna hadha alqurana ala jabalin la ra'aytahu allahu akbar allahu akbar ñu naan kese voilà ça mooy suñu problème avec ça ñu bëgg a ñoo bëgg a am xiyaada ñu bëgg a jiitu ñu bëgg a nekk ay nit moo tax it gis nga loo gis ay njaay àll rek ngay gis ay unkook ay sindaxa ki gaynde ki càkkaabaa ki kankura nga ki mu ngeen di gis moom la xusaa ka xusaa u seyl yonente bi alayhi salatu salaam nee na bokk na ci min alaamati saa mu ne àdduna bi du jeex lu dul bokk na ci màndarga nga gis nit ñi ñu day nem nekk ay xottu nit ay AGT ay AGT wallaahi nga gis ay nitu AGT xufaala ka xufaalati sair mu ne laa yubaalihim allahu baalan su ngeen demee ba nekk ay nit AGT yàlla dootu leen faale te loolu mooy liñ dal nii mu nekk ni àdduna bi dañuy sonn yàlla dafa faaleetul jullit yi jullit yi yàlla faaleetu leen wallahi alazim ndax lu tax partout dans le monde jullit yaa ngi jooy guddi ak bëccëg jullit yaa ngi yuuxu miskiin yi ñi néew doole ñu ñu leen di maatee di leen rey oh te amul kenn kuy wallu ah amul kenn kuy wallu fa metti ixwatal iman ba ca tegu mooy bayaan azamul ajr wa azimul jaza li ahli al imani wal jihad ba ñuy jeexale mooy yàlla dañuy leeralal pay gu rëy gi muy fay ñi gëm yàlla ak ñi taxaw di défendre diine ak di kawel kàddu yàlla li leen yàlla di fay ëllëg waaw azimul ajr mooy fay gu rëy ak lan gi nga xam ne yàlla moo ko dencal jalla jalaalu wa azza kamaalu ñi nga xam ne ñooy ahlul iman wal jihad ñi nga xam ne ñoo am ngëm yàlla ñi nga xam ne ñooy défendre kàddu yàlla ak ci nuñ ko mën a défendre ñi ko kaweel ñooñu sunu borom subhanahu wa taala moo leen dig ëllëg yowmal qiyaam ne dina leen fay fay bu rëy bu nu dellusee ci sunuy aaya sunu borom subhanahu wa taala mu ne wa ida unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu maa rasulihi istazanaka ulu tawli minhum borom bi ne ni ngay xàmmee naafiq yi dëgg-dëgg yow sayduna muhammad alayhi salatu wasalaam bokk na ci ni nga leen di xàmmee ñoom naafiq yi wa ida unzilat bu ñu wàccee ci yow suura benn saar saar ba di jàngale di wax an aminu billahi ngallaawaay gëm leen yàlla góorgóorlu leen ah allahu akbar gëm leen yàlla bàyyi leen bokkaale wa jaahidu génn leen seen kër yi wàcc leen lal yi sori leen soxna yi ànd leen ak maa rasulillah ànd ak yonent bi génn leen ànd leen ak moom yéeg leen montagne yi dugg leen ci xur yi ngeen kawe jil kàddu yàlla bu ñu wàccee benn saar bu wàcc di wax ci loolu istazanaka nga gis mu lay mu lay ñaan ndigal di la ñaan ngant ulu tawli patron yi borom alal yi ci ñoom ñëw naan la non c'est que instant yi dafa tàng c'est que instant yi sama tool bi xaw ma ku ma xaar instant yi sama soxna dafa ëmb instant yi noonu ndeysaan nga gis gaa yi ñëw di la ñaan ngant allahu akbar ulu tawli minhum ay ulu sarwa wal ghina borom am am yi borom koom yi patron yi ñëw di la ñaan naan la ñun mënuñoo dem parce que foofu daa sori wala amuñu ku ñu xaar wala temps yi business bi nangam ak nangam ndeysaan loolu ngay gis Sénégal tey ñuy tabax jàkka ji nga gis waa waa joo xam ne dugg jàkk danaa naka seen jàkka ji non téye leen sama participation nii quoi mais il faut ngeen jëlal ma ngàntu xam nga temps yi mënu ma awma temps pour julli si quoi mais jàpp leen ci lii ah awma temps pour julli si waaye jàpp leen ci lii ñaata borom alal yu ngeen gis duñu dem jàkk kan moo fi dëkk ak député buy dem jàkk ah ku fi dëkk ak maire buy dem jàkk ku fi dëkk ak sénateur buy dem jàkk ministre président de la république allahu akbar istazanaka day ñaan ngant ul tawli borom alal yi patron yi naan ñun mënuñoo dem quoi waaw léegi sax kilifa diine yu dul dem jàkk seen biir néeg la ñuy jullee duñ dem jàkka kilifa diine yu dul julli ji juma duñ dem jàkka lu dul tiitaru ji lu dul tiitaru ji yenn saa yi ñu ne non tey takk am na nga gis ñu sol grand mbubb yoo xam ne wala tey tabaski la korate nga gis ñu doog a julli ji ndeysaan yenn saa yi sax nga gis kilifa yu tiitaroo man munuma julli munuma jàpp gisu leen ko kilifa kilifa yuy tiitaroo munuma julli kilifa diine gu munul julli moom say taalibe di ndax dinañ julli ah ñun munuñu julli man munuma julli la ilaha illallah seenante bi dafa toog ba caag mu ne innama axaafu aleykum ñu ne ah mu ne aimmatil mudillin xam ngeen lu ma ragal ci yéen saaba yi ne yonent lan nga ragal mu ne ngeen am ay njiit yu leen réeral aimma al mudillin njiit yu leen di réeral loolu am ngeen ko wala amu leen ko ay njiit yoo xam ne boo nee alxuraan ñu ne la loolu de jarta jàng rakkal la alxuraan di ko soofal alxuraan alxuraan nga ne julli ñu ne moom julli nga ne màkk ñu ne jarta dem ñu màkk ñun fii boo nee lii rek ndeysaan noonu lañ lay jàppale diine bi di la ko soofal di la ko soofal loo wax ñu damm ko
am na ñaari rakka yoo xamante ne moo ko julli xam nga moo gën farata yi moo gën waaw gis ngeen maanaam boo indee ci lu yàlla wax ñu indi la loo xam ne ñu ne la lool lii moo gën lii te li garaaw Sénégal mooy loolu ñu lay wax ne moo gën amul dalil diw moo ne Samba moo ne Omar Omar ne Demba jeex na foofu lañ koy kalkal Samba ne Demba Demba ne Omar wala ñu ne la yàlla nee na wala yonente ne wala mu ngi nii déedéet diw Samba bu mu jaaree fii mu naan ci kook bi mu ne kook bi ku ci naan dem àjjana ñun naan nañ ci. mi ngi mel ni ma ne ku ñëw tafsir da ngay dem àjjana rek ngeen ñibbi rek tëdd lan la imaam nee na ku ñëw tafsir di nga àjjana jeex na waaw est ce que jaadul ñu ne imaam yow waaw ah imaam yow ku ñëw tafsir day dem àjjana ñu ne waaw ñu ne ah waaw imaam yow foo ko teg loolu nga wax ne ni imaam fan la ko yàlla wax ñu am lu leer daal nga waaw nga leeral ñu daal waaw ñu ne imaam ne waaw waaw waaw maa ko wax kay waaw ndax démb jibril mooy ñëwoon sama kër ñu ne waaw imaam waaw yow jibril moom foo ko gisee ndax jibril du ñëw ci ku dul yonent yow nga bëgg a gis nga jibril léegi luy dalil ne yow gis nga jibril est-ce que gars yi dinañ def lii déedéet ñoom daal ku ñëw tafsir dugg àjjana rek terminé dañuy dem daal taaral seen tànk dugal julli non dem naa tafsir démb jaratul may julli ah bon léegi lii nga di alxuraan nga ne moom ñun imaam lu mu wax dëgg la terminé ma ne yooyu ay caaxaan la gis nga yii ñuy wax fii ku ko dégg ba bañ a jaamu yàlla ba nga dee wallahi buñ la watatee ba dugal la ci armée lii ba nit ñi ñibbi yàlla ne la wa basarukal yawma hadid bu dee da nga doon nelaw tey di nga yeewu yaay caaxaan la de xam ngeen yonent yàlla Ibrahima ah moo taa moo jàkkaarloog yàlla ne yàlla defal dëkk bi rabbi ijal hazal balad yàlla defal dëkk bi mu ne man amana minhum billahi wal yawmil axir yàlla defal leen wërsëg defal leen lépp man amana minhum billah ñi gëm yàlla rek yàlla mu ne ko wa man kafar ak ñu weddi sax dinaa leen jox ñu lekk dinaa leen jox ñu naan parce que àdduna la gis nga de xam nga loolu àdduna la waaye ba mu ñëwee ca diine naan yàlla sama njaboot nañ am li ma am yàlla ne ko déedéet laa yanaalu ahdiya zalimin ibrahima sa njaboot ña ma ca tooñ bokkuñ ci ma leen ciy génne ñooñu kay amuñu contrat ak man ku ci mooy yàlla rek dem safara te ñooñu ay yonent la waaw jàngeen histoire nuux ak doomam ana doom ja ana jabar ja ana jabaru luut waaw léegi nag ñun ñu jàpp na ñun Sénégal am nañ ay ponkal ay ngand yoo xam ne ëllëg dañuy jàpp yàlla waññaar loxo bi ne ko ñun ñooy waa Sénégal dañuy dugaa ñena bal force loolu ana dalil Sénégal moom ñëpp dugg nañ àjjana ba pare àjjana moom fees na xam naa ne ñëpp dugg nañ benn maire bu ñëw tey daara ja di inscrire ndeysaan ñëw ne ma xam naa def maa bëgg a xamal ne daa demoon màkk yal nañ yàlla nangul ñaanal nañ leen ñaanal nañ leen yëpp nangam nangam ma ne ko yal nañ yàlla nangul ñaan yi nit ñi yàlla boole yal nañu yàlla boole na àjjana ah loolu kay dañuy dem ñu dañoo def yàlla dara ba ba du- ba du- dugal àjjana dañuy dugg di ma xoolaat ko kay daal di koy xoolaat bu baax kay nag bàyyi ko mu dem defuñ yàlla dara ñun bañ a def ñu ñu def ci guddeeg bëccëg di ko tooñ guddi ak bëccëg est-ce que sax ñun jaamu nañ ko loolu mooy wax est-ce que jaamu nañ ko hmm allahu akbar est-ce que màggal nañ ko est-ce que kennal nañ ko nuñ ko war a kennalee allahu akbar loolu lañ war a wax mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala mu ngi xamal ne saa yi ñu wàccee saar saar bay wax gëm leen yàlla xeex leen ànd ak yonent bi nga gis patron yeeg ponkal yi ku nekk di indi ngant minhum wa qaalu zarna naku ma alqaidin yonent bàyyi nu ñu toog waaye ànd ak ñu toog ah bàyyi ñu gérer waaye bàyyi rek ñun ñu toog bu ñu yóbbu parce que nangam ak nangam waaw utruk na ma al mutaxallifin min al ajza wal marda wal atfal wal nisa nga gis ponkal yi nga xam ne ñoo war a jiitu liggéey lislaam bi ñoo war a yenu jihaad bi naan yonent bi bàyyi ñu toog ànd ak ñi nga xam ne dañoo feebar garaawul bàyyi ñu rek ñun ñu masqué ànd ak ñi feebar ñi wala xale yi wala jigéen ñi ñu toog rek amul problème kenn du ñu xàmmee te bu caaxaan jógee nga gis Sénégal yëpp jóg waaye bu jaamu yàlla jotee nga gis doo gis kenn loolu mooy wax ji te bu ñu nee caaxaan am na nga gis ki léegi ku ku allahu akbar Euh, bu fekkoon ne Sénégal ni ñu gëmee caaxaan yi noonu la ñu gëmee julli fajar jàkka wala tisbaar wala takkusaan wala timis wala gée Euh, da ngay gis koo xam ne du yeewu fajar julli ñu ne feene ku fa julli juróomi ràkk rek rek nga gis waa ji daw mu bàyyi ñaari ràkk yi ko yàlla sant ñaar ràkk yi ñu la sant mooy ñaar ràkk fajar wala du ñaar ràkk fajar la yàlla wax ne ngeen yeewu di ko julli ci jàkka ji wala wala nga gis am na yoo xam ne ñaar ràkk yi du ñu yeewu moog waaye bu ñu waxee fukki ràkk fee rek nga gis waa ji daw maa fa jiitu damay fanaani illahi damay fanaani te ñaar ràkk fajar mun ta yeewu ndeysaan dem jàkk loolu ngeen defe ne du musiba la la du musiba loolu ban diine la yow li la yàlla sant nga bañ ko def ngay sonn ci loo xam ne nekkul ci Bukhari nekkul ci muslim nekkul ci Abu Dawud nekkul ci Ibn Maaja nekkul ci nekkul ci nekkul ci nekkul ci wax leen téere sunna yi Sénégal li ñuy sonn yëpp doo ko fekk ci téere islam seet leen li ma wax nag li ñuy sonn ñun amul ci benn téere sunna loolu loolu loolu musiba la nit buy sonn day sonn ci lu ko yàlla sant da ngay sonn ci farata nga sonn ci sunna loo ciy teg nga teg ko ci waaye yow alxuraan faale woo al sunna faale woo alxuraan faale woo farata faale woo dara yow daal ay mustahab ak ay mandub ak ay shirk loolu sax ay shirk ak ay makruh rek ngay sonn shirk ak makruh ah ak lu joxe xaalis da ngay gis ku yor kurus ñaari junni kurus ñaari junni laa la wax di xëcc rek waaye kurus goo xam ne tiyaaba doog nga ci soxla astaghfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illa dafa jar ñaari junni bal sax yonent bi nee na nga tudde yàlla sa loxo moo gën ah waaw kon dafa jar ngay ut kurusu fukki junni ah loolu yàlla taxatut foo ñu indi sunu xel xam ne ñun ay jaamu yàlla nan yàlla moo nu sant ñu jaamu ko ëllëg li tax yàlla bindu ñu indi ñu fi def ñu koy laaj suñu borom nee na ñii de radu nangu nañ kontaan nañ bi an yakunu ñu bokk ma al xawaali fi ñu wuute bañ a dem opposé yonent bi alayhi salaatu wasalaam lànk toog ma an nisa xoolal ponkalum góor lëng di bëgg chaque jour rek këram lay jullee du dem jàkk ma an nisa di julleeg jigéen ñi ma an nisa ah ma al marda ñi feebar ak ñi nga xam ne ndeysaan amuñu benn personnalité ci kër yi lañ war a nekk nga gis jullit boo xamante ne moom dafa bëgg a toog radu bi an yakuna ma alxawaalif bëgg a toog ànd ak ñi nga xam ne dañoo wuute ànd ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñooñu lan la leen alquran wax yàlla nee na wa tubia ala qulubihim yàlla kaste na seen xol yi fahum laa yafqahuuna duñu comprendre ba ëllëg yowmal qiyaamati duñu xam ci musiba lañ nekk ku yàlla kaste sa xol ku yàlla tëj sa xol fan ngay gindeete ko ci àdduna pare nga sa àdduna du baax alaaxira boo demee yàlla dugal la safara sunu borom nee na laakin rasul waaye yonent bi wallazina amanu maahu ñi gëm yàlla ànd ak moom ñooñu jaahadu dañuy xeex bi amwaalihim seen alal wa anfusihim ak seen bopp wa ulaika ñii hum ñoom alxayraat ñoom ñoo méngoo yiwu àdduna ak alaaxira gis nga alxayraat la yàlla wax da ka da kaa def groupe yamu fa mu ne wa ulaika humul muflihun ñii ñooy ñi texe allahuma ijalna minhum waaye xool leen lan la yonent bi lan la yàlla wax ba ñii tax ñu am yiw waaye lan la ñu def ba texe lakin ar rasul waaye yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallazina amanu ak ñi gëm maahu ànd ak moom kon dañoo gëm ba pare ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam bañ a toog ne ko yow kenn demal déedéet dañoo ànd ak moom di ko défendre gëm li mu indi woon yemuñ ci jaahadu bi amwaalihim wa anfusihim xeex joxe seen alal ak seen bopp joxewuñ sax rek seen alal toog ne man sama cotisation ngi nii non dañoo joxe seen bopp joxe seen alal sunu borom nee na wa ulaika lahumul xayraat ñii ñoo màng yiw yi fi dunya bi nasr yàlla dina leen dimbali ci àdduna ñu gañe wal xanima ñu am koom màng wa fil axirati bin najaati wal kirama ëllëg bu ñu demee alaxira yàlla rëccal leen defal leen taraanga dugal leen aljanna sunu borom yemul ci loolu mu ne ulaika humul muflihuna ñii ñooy ñi texe yemu ci mu ne aadallahu lahum yàlla préparel na leen dencal na leen jannatin tajri min tahtiha al anhar xaalidina fiha zalika huwa al fawzu al azim allahu akbar aadallahu lahum yàlla waajal na leen dencal na leen jannatin ay jardin yoo xam ne tajri day daw min tahtiha ci suufam al anhar ay dex ay aljanna yoo xam ne ci kaw ndox la nekk aljanna yi dañuy tëmb wala yenn saa yi nga gis benn bato bato bi comme bato bi ñu romboon bi ñuy dem Gorée ñu ne bato bi dafa ñëw pour faj bato bi dafa ngande ci biir géej gi ba kenn du xam nu mu toll ñëpp yéem bato bi nga gis yenn saa yi ñu won la bato bu ëpp boobu nit ñi gis ko ñu ne la bato bi nit mën na màgget ci biir nit mën na fee nekk ba dee te du laal suuf yenn saa yi ñu ne la bato bi am na stade wala terrain de football bato bi am na marché wala loolu ay doomu aadama ko defar kon bu ñu yàlla waxee am na ay aljanna yoo xam ne tajri min tahtiha al anhaar ñu war koo gëm wala ah fekkee doomu aadama moo war a mën a defar bato bu am stade wala bato bu am marché wala bato bu hélico di wàcc wala bato boo xam ne dafay yóbbu ay avion de guerre comme yi américains yi defar ah yooyu gis ngeen ko wala gis leen ko kon bu nu yàlla ne ëllëg yowmal xiyaam dinaa leen defal ay kër yoo xam ne day tëmb ci kaw ci suuf nekk ay dex kër yi di feey war nañ koo gëm wala waruñu koo fay gëm ah wallaahi war nañ koo gëm ndax suñu borom def na lopp loolu gis ngeen àddina bi ni mu ko defaree ah wala yow sa bopp gis nga ni mu la defaree fan ngay xool ci sa bopp neexu la nga ni lii nañ ko dindi def fi leneen ku nekk ci ñun toog ci jàkka ji xoolal sa bopp fan moo la neexul sa cër yi bët yi bakkan yi gémmiñ gi bopp bi tànk yi dënn bi lan moo la neexul fi mu nekk nga nga wax ñu sa ñu suñ ko doon changé fi ñu koy def kenn lay xaar mu proposé kenn mu ne man sama bët yi xëy na fi mu nekk neexul bët yi ñu ne ah waaw léegi foo bëgg ñu def ko kooku lay xaar di wala sama nopp yi fi mu nekk neexul la nii fii fii nii fii est ce que mënuñu ko woon changé waaw bismillah léegi waxuñu fan lañ koy def. kon yéen ñëpp fi seen seen cër yi fi mu nekk baax na ah allahu akbar moo tax ba aaya bi di jeex mu ne fa tabaraka allahu ahsanal xaaliqin allahu akbar yàlla lu mu defar rek kenn mënu ko corriger da ngay xool lool rek fi mu def rek nga xam ne lii fii la war a nekk nga rek nga xam ne foofu la moo tax mu tudd alxakim ku xereñ koo xam ne lu mu def rek noonu la kenn du ko corriger loolu mooy alxakim sunu borom nee na jalla jalaaluhu wa azza kamaal ñooñu dencal naa leen ay aljanna yoo xam ne tajiri day daw min tahtiha ci suufam al anhaar ay dex waxul benn de al anhaar la wax ay xaalidina fiha dañ fay sax éternellement zalika al fawzul azim yàlla nee na lii mooy texe bu rëy allahu akbar moo tax fa man zuhziha an innaar wa udxila al janna faqat wa ma al xayaatu dunia illa mataaul gurur yàlla nee na ëllëg yowmal xiyaam bu nit ñi rangee di jéggi siraat nga xam ne ku daanu ci biir siraat biir safara jahannama ngay daanu te ñëppay jéggi siraat yàlla mu ne képp ku yàlla rëccal ba nga traversé siraat sa tànk tegu aljanna yow texe nga foofu la nit war a yuuxu daa di zibile yuuxu allahu akbar foofu la bu nit rëccee ba pare ba taxaw geestu ne nii gis nit ñi ran di ñëw mu yërnu gis jahannama mu ne nii gis aljanna mu xool boppam moom traversé na ba pare allahu akbar foofu la doomu aadama war a yuuxu xam ne moom yàlla defal na ko lépp texe na moo tax mu ne faqat faaz kooku texe na xam nga aaya ba lu mu ci teg mu ne wamal xayaatu dunia illa mataaul ghurur gis ngeen àdduna bi ngeen gis ñu ne yàlla mu ne da leen di nax rek da leen di nax wallahi àdduna day naxaate yàlla seede ne àdduna day naxaate xam ngeen lu tax àdduna daf ñuy nax dundal lu la neex ci àdduna yoral ay milliards yoral ay jet privé yoral ay immeuble yoral ay hammer après après da ngay dee bàyyi ko fi wala da nga koy yóbbaale ah da nga koy yóbbaale soo dee fu mu nekk fi nga koy bàyyi ana njëriñ bi te yàgg yàgg yàgg yàgg da ngay da ngay dee ndeysaan te dee bu ñëwee rek dara neexatut ndeysaan allahu akbar adduna dara dafa soof léegi léegi bu ñu bu ñu jullee gee ba pare ñun ñëpp bu ñu ñibbee ku nekk nañ la tegal ginaar nga reer ak kilo mburu ba pare ñu tegal la ay pomme tegal la tegal la tegal la nga lekk lekk lekk lekk lekk ba ci yàgg looy def nga ne surna ñu ne la lekkal nga ne surna sur kooku waxaatee lekkal nga ne yow lan la yaa surna nga ne surna nga ne mu ne la mais waaye léegi lekkuma wax dëgg ma bëgg a forcé surna gis nga léegi sax dootul neexati ndeysaan waa ji dégg naa ca jamono xiif ba kancaaro yi soldaar yi ñu leen toggal ay gras yi ñuy lekk waa ji day tëdd ba guddi rek daal di tëb miir camp bi dem rek yoxosu lekk yi lekk ba suur génn tëb ñibbi ñu daal di seetlu ne ginaar yi day manqué chaque jour bu ñu koy séddalee daal am na ku fii le commandant bi daal di montal commando yi fu nekk rek mu teg fa ñett gars yi daal di takk ay xobu garab maaseeg lëndëm gi ñu seen sawaay muy tëg miir bi ñu ne ko patt bàyyi ko ba mu dugg ci biir ba tiim ginaar yi di lekk mu jékki-jékki rek mu dégg kalashnikov bi daal di armé wu ci nopp bi karaj kak kak mu ne nii waa ji ne ko lekkal mu lekk ba caag mu ne waa ji ne ko lekkal mu lekk ba caag muy jooy gi rong nga ñuy commencé xam nga ku tiim ginaar di jooy loolu safatul nga tiim ginaar di jooy neex na mu xoolaat waa ji waa ji ne ko bool bi day jeex mu commencé ah waaw xam nga ne neexatul de daga loolu mooy musiba ci ñun im lu mu neex neex neex neex neex neex mbokk yi après ah après da ngay bàyyi dem ci yàlla allahu akbar dama dégg fan yee benn waaye bu ñu ne dafa gaañu Sénégal ñu ne bàyyi na chiffre d'affaires ñaata milliards ah ñu wax ñu wax milliards yu bëri ñu ne amoon na jet privé benn waaye ne ma bu daan seetaani da daan seetaani match Barça da daan seetaani Sénégal da daan seetaani match Barça bu demee gars yi ay xaritam lañ dañ koy may fañoo yi nga xam ne moom la capitaine yi di changé te dañ ko koy jox mu indaale ko ndax chaque match day dem allahu akbar abaka abaka sa oto abaka sa oto